بآياتنا أولئك هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأوفوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا شروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باعيا أن ينزل الله من فضله ألا من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 13 ci angle bi nga xam ni ñu ngi duppee tëli bi Alxaaji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu ñëw tey ànd ci ñaan gi ak seen chaîne bu mag bi tabarakallahu di Dak Médina anduko technicien yu xarañ yi fa tabarakallah waye anduko tabarakallah groupe état andak soxna Ndey Penda gay andak ak Adja Zeynabu Mbay andak ya yaa Sayida soxna aida Mbay ñëw fi tay tabarakallah ci angle bi nga xamni ci lañu déppé mam maam Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu wàcceel ko fi kamil def nañu fi daw tabarakallahu léegi li des mooy suñu sëriñ bu tedd bii nga xam ni dogit la ci Cheikh Seydil Hadji Malick radiallahu taalaanu muy Pape Khalifa Sow bëgg nañu daal yaa xam boo jàngee xatmu bi la wala avant ngay jàng xatmu bi xatmu bi di ñaan gi waaye bëgg nañu lennet tabarakallahu nga baaxee ñu ko ci dund Cheikh Hadji Abdoulaye Dabakh radiallahu taalaanu boo xoolee dund maam abdu dund sallallahu alayhi wa sallam dund maam Abdou dund sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla bëggoon ma nga ca lu yàlla bañoon bañ na ko ba tëdd ci suuf si te kàddoom yi bari jàngale la maam Abdou bëri na jëf yi mu jëf yu ci bari jàngale la waaye nit ñi dégguñu ko. démb maa ngi nettali ci kër Pape Alxaaji Ndëri Ñang bu Cheikh Alxaaji Abdoulaye Dabakh radiyallahu taala fii ci Unité ma ànd ko télé bu màgg bi ñu def émission bu yéeme tabaarakallahu ci Cheikh Alxaaji Abdoulaye Dabakh radiyallahu taala maa ngi nettali Pape Xalifa jëmm ji nga xam ni yàlla dafa mënee gan frère ñu jublu ci tabaski soxnaam ni ko comme jamono neexul te sa frère yàlla mën na ko gan demal seeti ko bi yàlla dogalee mu seeti ko frère ni ko mën dey benn xar te moom lay jullee kon tabaarakallaahu du ma la mën a jëndal xar yàlla dogal waa ji tëdd ba gudd ñuy yenkew ko ni ko demal seeti salhaaj Abdoulaye Dabba mu xëy jalu oto dem Tiwaawan bi mu jëlee oto dem Tiwaawan ñu ne ko alxaaji Abdoulaye Dabba dem na jagsaaw mu demaat jagsaaw fekk góor gi toog mu ne ko papa si ñu ngi lay ziyaara tabaarakallaahu léegi laa jóge Tiwaawan waaye ñu ne ma yaa ngi jagsaaw ma ñëw fii dab si la waaye sama soxla leen rek la dama di njaboot jamono neexul tabaski jot na te aw ma lu ma tabaskee te yow rek ginnaaw yàlla ak yenent bi yow laa ci yaakaar alaaji abdu woo abdu jéey ni ko defar leen gan gi ndékki dalal leen ko te ñu xaar yàlla suñu boroom bi ñu toogee tabaarakallaahu ba ginnaaw tisbaar gan gi sax yaakaar ni góor gi da ko fàtte mu abdu jéey alaaji abdu woolu ko ni ni ko waxal gan gi fàttewuma ko yàlla laay xaar te yàllaa ngi ñëw fi ñu toogee ba 4 heures frère ba taal otoom beneen 404 topp ci ginnaaw mi yépp xar mu rëy ñu jëmale ko Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu bi ba jag saaw gaare ñu gaaree mu ne waa ji wàcceel xar mi yow ko ci garab gi bi mu wàccee nuyu góor gi ziyaara ko dindi enveloppe bu 500000 jox ko ko alaaji abdu ni abdu jéey wool ma gan gi fi xëy si woon ni ko yàlla ñëw na alhaaji abdoulaye dabbaax gan gi toog ni jàkk ci frère bi noppi alaaji abdu yëkkati enveloppe bi jox ko gan gi ni ko yàlla ñëw na ki ko jox di frère waa ji ni ko góor gi doo xool enveloppe bi xam li ci ne wala li ci nekkul mu ne ko man day soxlawul may xam li ci ne waaye yàlla xam na li ci ne waaye ki ma koy joxit xam na li ci ne kon man Abdou soxlawu may xam li ci ne Cheikh El Hadj Abdoulaye Dabakh ni waa yi xar mi ma indil bu fekkee xaj na sa oto te jëmm ji ngeen bokk fa ngeen jëm nga yóbbaale ko moo xar ni tabaarakallaahu ba fa mu jëm waaye diiru ñoom ñaar ñu nekk ci oto bi ci gàttal kii waxul kii waxul ba ñu yegg ci kër ga wàcce xar ni mu wacc soxnam ni ko waxon na la ko sa frère bi dafa bax xam nga ni bo ca telon dem batay waxatuñ ko mais batay waxul soxna fi ni ko alxaaji abdoulaye dabbaax radiyallahu taala mo jaar ak man fi kon gor gogu bo ci don jahal. do ko jexal bo ci den yendu bu guddi fanan ci do ko jexal kon tabaarakallahu koku mo tax ne ñu ndaje fi ah ñu am ci yaakar ndax jëmm ji tedd ji bi muy jàng alquran di fa tabarakallahu xol yépp toy nañu xol yépp yëg nañu yàlla kon pap xalifa yal na yàlla guddal sa at foofu la ñuy yemandi tabarakallahu bàyyi la kàddu gi masha allah nga jaar ak ñun fi nga daan jaar ak ñun yal na yàlla guddal sa fan nuyu bu baax tabarakallahu alxaaji seen alxaaji ibrahima seen bu bushra teewal fi waa Bouchra yëpp ca daara ja ak mbokk yu tedd yi toog yëpp macha allah ñi fi toog ñëpp ay ay soppay Cheikh Hadj Abdoulaye Dabakh radiyallahu taala ni ci jëmm ju tedd gi macha allah yaa oustaz nga xam ni ak mu ne bu ñuy def kaamil bi ñoo koy bokk moom fii ci barab bi alxaaji Maodo Thiam nag moom kenn amul fayam moo yor sonorisation bi ànd ko disponibilité boo xam ne fa tabarakallahu foo ko natt na ko yal na yàlla jox la conteneur sonorisation ci barke yenent bi réew mi yal na fi yàlla dolli jàmm réew mi yal na fi yàlla dolli jàmm feebar bi lëmbe àddina ci barke Cheikh Hadji Abdoulaye bi bisam bii bis ni tey yal na feebar bi seey yàlla bu kenn gisati coronavirus barke yenent yàlla Muhammad kon fa tabarakallahu ñu déglu rek Pape Alxaaji Abdoulaye euh, Pape Alxaaji Sow ak ci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 ak ñi nga xamni ni ñi ngi ci ay bërepp seen xel yëpp nekk fi ci lammiñu sëriñ Babacar mbub ñi ngay yeesalaat suñu nuyo ci ñëpp di leen gërëm fa tabarakallah waye man kaddu yi may yëkkati man ngi koy ci sang bi di sëriñ baba babakar Babacar na yalla fayal nu la mayete nga nu tay opportunité bu reuy baranu ko tok fi tay jang ñent hizbu alquran wala juram ben te woor la ni boo ñëwuloon fi tay di nga xey jang alquran kon opportunité bobu yaan ko offrir ñing la ci gërëm bu loolu wesso itam sang bi nga xamni ni bi mom lañ ciy fàttaliku moy 14 septembre n'est-ce pas du wallahi donon bisu boo xam ne dafa gaaroon Sénégal ci ay at yu néew rekk ci gannaaw sang bi agsil agsil waaw waaw alaaji Abdul Aziz Si Malick sagu maam Seydil Xaaji Malick boobu alaaji Abdul Aziz Si Malick nga xam ni mbindeef yëpp dañ ko rus dafa am bis fii ci Padois kër goo xam ni ñoom ñëpp ay chrétien lañu góor gi toog ak njabootam ndeysaan ñu jékki-jékki rek génn alaji abdul Aziz góor gi daal di ñëpp vous tous je vous demande d'écouter le sage de Tivaouane c'est lui qui parle loolu rek leneen la chrétien yi ñoo ko gënoon bëgg jullit mu nekkoon nit koo xam ni keroog mu gënee àdduna la sëriñ Babacar si wax ni Seydi Hadji malik de yàlla may naka tout tànk boo xam ni lépp li yàqu woon ci mbokk gi ak diine ji ak tarixa bi ci moom la ko yàllay jaarale ñëwaat ko ba lépp maase loolu sëriñ Babacar si moo ko seedeel Babacar si nag seen mag la mais daf leen mag magelu njureel ñoom ñëpp daf leen mag magelu njureel sëriñ Babacar Sy ku joxoon xorma Alaaji Abdoul Aziz la te ku ne xam na ne sëriñ Babacar si boo ko tuddee c'est l'autre chose sëñ Babacar Sy hors pair la bokkul kenn limaale wu kenn kenn limaale wu ko ak lenn mën kanamam mën gannaawam duut kenn may sax bi muy taalif dafa ne xale yi judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay lu mu ci teg te mbay la ñu loolu ñun ñëpp ñoo ko sëriñ Serigne kër si dafa am bis am benn kilifa ci kër gi mu def suul ëdëb mooy lu lu lu ñàkk xorma ci kanamu Serigne Babacar Sy sëñ Babacar si merta mera waaja diir xam nga sëñ Babacar rek ca fulla ja ak fayda ja ak fermeté waaja jaar fu ne sëñ Babacar Sy téye boppam ñu jékki bis alaaji abdu ànd ak waaja ak mbooloo mu takku ñu ñëw teew ci xanamu sëriñ Babacar Si sëriñ Babacar Si ni dënn toog xam ngeen sëñ Babacar bu toogee ci béréb du sëqat du ñandu du tëfli du ñaq du geesu nit dégg rek xam ni yëtt addabu ma al xaq alaaji Abdul Aziz daal di ne sëriñ Babacar dama doon sàkku ndigal bu ma amee si ndigal ma jël kàddu su ma amul si ndigal ma noppi sëriñ kër si muuñ ni ko Abdou am nga ci ndigal alaaji Abdou ni sëriñ Babacar si dama da loolu laaj ndax bi sa baay di dund Seydil Hadji malik ndax takk nga ci dund Seydil Hadji Malick ñaata nit nga may wérd sëriñ Babacar si ni ko déedéet mu ne ko ci dund Seydil Hadji malik takk nga ñaata nit nga muqaddamal ijaazaal leen sëñ Babacar si ni ko déedéet mu ni ko gannaaw dunduk Seydil xaaji Malick ba fii ma toog ci saal bi ànd ak mbooloo mii tey ngir yàlla ak sa jëmm takk nga ñaata nit nga fi may wérd sëñ Babacar ni ko déedéet mu ni ko takk nga ñaata nit nga fi ijaasaal sëñ kër si ni ko déedéet mu ni ko teraanga yu rëy yooyu yëpp ak cër yu rëy yooyu yëpp sa borom defal la ko sa barke Baye Seydil Hadji jëmm ji doyee di ji si Malick nga xam ne matul dara tooñ la mënoo dëgg ci yooyu yëpp nga muñal ka baal ka sëriñ kër Si muñ ni ko Abdou jéggal naa ko xool na rek Alaaji Abdoul Aziz Si diplomatie bi yàlla defoon ci moom mu nekkoon nit ku baax jëkki nañu fi benn at booba monseigneur Thiandoum moo fi nekk ñu xëy xëy rek bëgg def église ci biir Tiwaawan tabax ba mu àgg rek ndekk église lañ ci namm ñu indi mbir yi moonte mu indi soulèvement ci bir tiwawal alaaji abdou ni bu kenn yëngu da ñëpp tok alaaji abdou and ak mbolo mi muy andal ñew set si monseigneur tiandou ni ka maa lay nuyu di la ziyaara wax ak mom wax yi rafet ni ka ca maam ya ba léegi église musul am fi ci tiwawal te seydil xaaji malik ni mu ma juré ni la la juré ba kaddom daano monseigneur Thiandoum jël caabi ya teg ci loxo Alaaji Abdoul ni ko fomm nañu li ñu bëggoon def ci kaw erreur caabi yaa ngoog lu la soob def ko foofa tey dispensaire lañ ko def seetal keroog bi nga xamee ni police ak gendarmerie yëpp dañoo jaxkaarloo fii ci dakaar toj toj ñoroon am ci Dakar Alaaji Abdoul Aziz moo sol yéreem ñëw taxaw keroog ba mu ñëwee lépp ci la sedd Alaaji Abdoul yàlla da koo rus ba bi muy indi virus corona fii dafa bàyyi ba mu génn àdduna. allahu ba ci bëtala joolaa. bi muy am Alaaji Abdoul dafa génn àdduna yàlla da koo rusoon xale bu xalifa boo xam ni da daan dem ci ngénte yi. di dem ci dëj yi. di dem ci opito yi di seeti maladie. di war otom di dem di seeti taalibe yi. di dem ci armeel yi. di dem ci àll bi di fekk ay bàyyi ma ci àll bi di leen xont. kooku tey moom la bëccëgam ñëw moom la sëtam bii Babacar Mbuub di organiser lii at mu ne mu ngi ci nangami at yàlla dinu suturaal. 23 ans 23 ans ci ren mu di ka mu di ka taxawal dinu sant ñuy ubbi kaamil bi di ko tëj ci mbaaxam ak yeneen yu fi daan xew kon ñu ngi ñaan sëñ Babacar yenn yàlla ëcc safan yow nag lii devoir la ci yow. ndax maam nguuda mbuub mi nga xam ne moom meññ sa way jur kooku ndox mi Seydi Hadji Malick daan naan moo ko daan indi Seydi Hadji Malick di dox 7 kilomètres di ko indil di dox 7 kilomètres fajar di ko fekk tiwaawan muy noddal Seydi Hadji Malick di ko li xamal kon bu sëtam wootee bëccëgu alaaji Abdoul Aziz laa xar wawaay loolu war a mën a nekk la kon yenn yàlla fayal nu la mbooleem yéen mbooloo mii ko dégg dagg itte yi ku xam alaji Abdoul Aziz nga xam ne xeebul kenn bis ni tey waroon na bu di jotee fii yëpp ku fi romb xam ne am na lu fi xew waaye noonu moo neex sama borom programme boobu mooy programme yàlla kon muy waa télévision bi di mboolem mbooloo mi fi toog ak ñi ci biir kër yi ak ñi ci balcon yi yan na yàlla fayal nu leen ci barki alaji Abdoul Aziz Sy Malick Serigne Maodo si bi nga xam ni donte ne taawam la ku ragal yàlla la wax na ni alaji Abdoul Aziz bi mu génnee àdduna am na diir boo xam ne bii ni àggul fi mu war a tëdd góoru yàlla yi di ko jokkalante seen biir kenn ku ne di ko teral wax na ni alaji Abdoul Aziz nee na bu keroog yowmal xiyaam yi képp ku ko soppoon dana la solal mantu leer alaji Abdoul Aziz kenn mënul wax ay mbaaxam xoolal bisam ba rek benn fajar la ñu xëy fekk moo ñaanoon boroomam naka sama borom maa ngi lay ñaan bu desee dul génn àdduna maa ngi lay ñaan bu ma Azraayilu rey muy malakal mawti na nga ma jëlal sa ruux yow sa borom booba professeur Moustapha Ndaw Moustapha Sow moo nekkoon ci hôpital bi Alaaji Abdoul Aziz bi muy génn àdduna professeur yëgu ko mbokkam yëgu ko doom yëgu ko kenn yëgu ko yàlla ci boppam ci kattanam ak mbaaxam ñaan nga mu ñaanoon yàlla may ko ko yàlla moo jël ruux ruuxam góor googu la yenn nu yàlla tëbb ci barkeem effort yi nga xam ne déployé ngeen ko ngir yàlla ak jëmmi Alaaji Abdul Aziz yenn ci yàlla dëgg pandémie international bi yàlla jële ko fi ba faw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yenn ànd ak nawet bi ak inondation yi dem ba faw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam man dama nekk ci itte bu mag mais jëmm ji dafa ma defal teraanga yu rëy yoo xam ni dama xam nu ma koy def moo tax saa di jotee lu ma jàpp ma bàyyi ko li ma toog yëpp sama téléphone mi ngi soné ba ka ñaare lit mooy alaji Abdoul Aziz Sy nitu yàlla bu mag boobu moo nu may wérdu salatul fatiha 1975 moo ñu may sayfi yu itam 1985 jaaraama doomu sayfiyatu njang bi yenn yàlla fayal nu ko xanaa daal képp ku fi teew ñu bokk jàng fatihatul kitab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 يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله نبي مصطفى الكريم ونحن على ما خال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعذب من كل الحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ارزقنا فضلا من قرأ معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان آمين ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان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 وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اعدنا بهناية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العظيم هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى روح عبدك الحاج عبد العزيز سمالك آمين. اللهم اغفر له وارحمه اللهم أوصل صواب ذلك إليه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات بين الجن والإنس اللهم انصر من نصر الدين واغزل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واغفر لنا كل الذنوب يا رب واستر العيوب ويا مقلب القلوب قلب إليك قلدي رزقا حلالا واسعا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها يا ناصر يا حق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 البرق والقائل بموضوع الأرباح الماليات لكل متحرز من البهور والأوان والنور كلامع الذي ملقت به كونك الهائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على أهل الحق التي تضجرنا منها ومشرقا بالمصطفى الشافع كل الخلق من إله أزكى صلاة الله وتسليمي على الذي وآله وصحبه الخراء وتابنا يا ربنا يا مالك الكونين خدا إلهي أمتنا الله على الدين النبي وهم الإمام آمين آمين استجب دعاء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 وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين